Euh, tous les mois tey dañoo ñëwoon fi nga xam ne moo di région de Thiès communauté rurale bu Fandène ci village bi ñuy wax Lalane alors ñu ñëw ngir euh, xool euh, population bi ni ñuy dundee naka noonu itam xool li nga xam ne moo di seen i jafe ñu ngi fii ci Sembu Lalane doon seet ci élèves rapport ak li nga xam ne mooy seen i njàng mais aussi jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy rencontrel bu ñuy ñëw di ci sem bi alors dañuy dugg xoolandi élèves yi benn waxtu jot na mooy heure bi nga xam ne moom la ñuy faral di wàcc waaye tamit teewul dañuy dugg ngir xool ñan mën a waxtaanal ngir ñu wax ñu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum école bi. alors tey jii ñu fekk la fii ci euh, Lalane nga nekk ci système bi alors yéen euh, difficulté yi nga xam ne da ngeen koy lan mhm. ngeen ko. non pour ñu ñëw fii dañuy dox dañuy yeewu 7 mhm. dox ñëw fii bu dee dañuy wàcc bu ñu naajee wàcc trois heures dañuy dox dem te naaj bi dafay tàng aussi. Euh, tey jii lan ngay euh, lancé comme appel yi nga xam ne moo di seen autorité yi wala président de la république. bu ñëpp parce que du ñun kase mhm. am na ñeneen tamit ñu ñuy àndal dañuy dox dem te naaj bu xawee tàng fii moom day métti pour dox dem ñibbi. mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ci leeral TV ak ñi ñuy faral di suivre ci leeral point net ñu ngi fii ba léegi ci village bu ñuy wax Lalane nekk ci communauté rurale bu Fandène ñu doon fi euh, dajeek ñi nga xam ne mooy élèves yi nga xam ne ñoo fi jàngee ci sem bi ak ci élémentaire bi ndox ñoom li ñu jot a wax comme problème mooy euh, problème yi ñu jànkonteel bu ñu bëggee jàng si fii ci sem bi muy ay kilomètres yu bari yi nga xam ne dañ koy dox naka noonu itam gis nañ fi li nga xam ne mooy euh, manque d' par rapport ak li nga xam ne moo di ay toilettes ak li nga xam ne moo di clôture yi manque fii ci sem bi ñoom nag li ñuy ñaan mooy état bi indi li nga xam ne moo di ay solution ci li nga xam ne mooy problème yooyee ñu wax